À 221, une autre vision de la télé. fuiti hydrocarbure mi ñu nemmeeku fii ci Hann bel taw bu métti mi amoon ci capitalu Sénégal commune bii di Hann Bel-Air nit mënu fay nooy ngelaw ju baax waaye ñenn ci dëkkuwaay yi seeni borom dañ leen mujjee génne li ko waral mooy tuyau essence bu société africaine de rafinage moo daal di am fuite gasoil bi daal di jaxasoog ndoxum taw bi lee te it kër yëg bërëb liggéeykaay yi dañ leen daal di tëj ñii seen activité yàqu na ñii ñi nga xamante ni mooy seeni bagages yi ci seeni biiri kër daal di yàqu gannaaw gouverneur bu Dakar mairie bu Hann Bel-Air daal di déployer ay pour mën a saafara mbir mi ànd ak ceeg sapeur pompier balaa jëye di am. dafa nekk situation ba nga je dirais catastrophique parce que bu dee ay ndox ya nga xamante ni zone de captage le jógee ñëw ci Sénélec bi dem cité Bellevue ñu acheminer ko vers le parc mu ñëw le rek problème la mu am ci leneen la nga xam a aggraver la situation mooy fuite fiel bi nga gis ni nga xam SAR. seen tuyau bi ci ginnaw la nek am fuite bolé kak ndokh mi and ni yéen ñi fi taxaw sax gis ngeen li ngeen di noy muy carburant bi nga xamanteni mo jaxaso lolu c'est déplorable te vraiment waxuma sax ndokh mi mais peut dafa nek la nga xamni euh sécurité la ci ci walu santé parce que fu mu ne problème santé bi sax mo ñu gëna euh, yitel que li ñi wax moy problème inondation municipalité bi depuis mo am autorité administrative yi nga xamone la mairie waroon na len saisir ñep saisir na len n'empêche que ñun dañ fi déplacer une brigade spéciale Nous pomper ndox mi 72 heures Nous ngi ñu ngi ci ndox mi di pomper pour soulager la population parce que tamit assistance municipalité pour say administrer il faut que nga ñeu assister len mais problème bi moy mairie bi attanul li nga xamanteni mom lañuy recevoir ci ndox mais 72 heures ngi guddi ak bëccëg dañ fi nek am nañ benen renfort bu fi ñeu muy sapeur pompier yi parce que démb am nañ la visite di gouverneur mais boo xoolee moto pompe diamètre cent mètres bii ñu indi mënul régler le problème parce que la mairie bii mu teg rek c' est cent cinquante mètres cube kon booy ñëw renfort da nga war a indi en plus mais lii ñu indi euh, manul dindi ndox yi nga xamante ni moo nekk fii te problème mu fiyal bi nekk nii ñun moo ñu gën a poser problème dañuy def euh, alerte ba nga xam ni foog ñu wax autorité yi ñu ñëw dindi ndox mi parce que gasoil bi mu àndal dafa poser problème mais la municipalité boobu ba léegi moto pompe diamètre cent cinquante bi nga gis nii boobu ba léegi kenn déplacé wu ko fi la nekk guddeeg bëccëg même bu fekkee guddi la dañ ko fi taal bàyyi ko fi mu fanaan te gis nga ndox mi mënul bouger mais boo xoolee si suuf lii lépp commerce la kenkaayér yi ay restaurant ñooñu yëpp dafa joxe soixante-douze heures arrêté ba nga xam ni bu fi kenn def commerce kër yi ñëpp la ñu évacuer parce que ndox nga gis fii mais tuyau bi ci biir kër yi la jaar soo fa duggee tey gasoil rek ngay gis ci biir kër yi gasoil moo tax fu mu ne dañ leen indi ci école bi tere leen ñu duggaat ci kër yi waxul waxu ndox mi mais fuel bi nga xam ni moom la ñuy noyyi ñoom préoccupation bi ci loolu la gën a ci ñoom lañu ñu accentuer parce que dafa dafa metti daal démb le gouverneur bi muy ñëw la brigade de l'environnement tamit bi ñu ñëwee gendarmerie environnement dañu fekk benn xale bu jigéen ba nga xam ni dafa asphyxié bi ñuy ñëw ñoom juste ñu ngi koy gis muy daw mënatul nooyi kon problème bi jéggi na sax li nga xamante ni nit ñi dañu nekk de l'autre côté mais li ñuy dund yéen ñi fi nekk xam ngeen ni lii metti na trop trop trop metti rek metti metti samay doom yëpp feebar nañ ba ñu entré leen suñuy jur yi am na yu ci dee mais sant yàlla rek comme que bakkan rattu ci rek alhamdulilah rabbil alamin suñu matériel yëpp yàqu na yow gis nga sama néeg du lal du télé du frigo gis nga lépp yàqu na lépp maag samay rakk yëpp gis nga samay néegu rakk yi sama néegu doom yi yëpp suñu bagage yëpp tuuri nañ ku amul 1000 francs génne dem gàddu sociaux ñaari ndox moo naan boobu la commencé génn fan yi nag muy génn nànk-nànk ba mu yàgg rek mu génn nag bu baax bu baax a baax ba sama rakk dafa daanu woon ba ñu yóbbu ko hôpital fi mu nekkee tey jii nii am na benn locataire bu ñu yóbbu nii hôpital bi loolu la ñuy dund ñu ngi ni nga sunu voie ni mu gis nga ñu ñu ngi nii toog ñu ngi nii toog benn dépense lañu jox tey jii lu ñuy reeree sax amuñu ko ñu ngi nii toog amuñu dërëm ventilateur amuñu ko amuñu moustiquaire bu leen ma ko bàyyi leen amuñu dara ñu ngi ni dara amuñu ko ñu ngi ni suñu bagage mu bàyyi leen moom bàyyi leen waaw ñu ngi ni nag. nañ fi jëlee yóbbu ñu feneen ñu am kàndeer wala kàndeer duñu am lu ñu fajoo am lu ñu garab waaw moo ko suñu ñeenti xar dee na ñeent xar na na di dëkk ba sunu papa ngi dénkaane fee ñaari xale yaa ngi nii ku ñu ngi ci man damay day wal amuñu ku ñu mën a dimbali daal jëlee ñu fi ñun ñun moom bëgguñu defaraat ku bëgg a defaraat na ko toog waaye ñun moom njabootu Saliou Diop nañ dem rek suñu yoon lu ñu loolu lañ bëgg ku ñu mën a dimbali rek nga dimbali ñu médecin yi waxoon dañuy ñëw tey ñu ngi xaar nañu gisuñu kenn kenn lañ gisul ki ñuy yàgg na fi te encore defaroon nañu tiwo bi daal yooyu mos nañ koo defar ndax man bi mu commencé euh, l'an deux mille lan quatre waaw l'an deux mille quatre boobu am na ñëwoon nañu tiire bi ñu tiiree dañu dem ba ne napp napp bu nekk ci suuf la léegi nag boobu ba tey bu nawet ñëwi daal day ñëw mais bii nag moom moo ci raw bii ñëw nii moo ci raw ndax sama doom yoroon na ay kuy ci la ñu sama ñaari sët yóbbu nañ leen hôpitalu Parc bi foofu lañu ñu ndax dañoo jékki-jékki seen bakkan yi di xelli ndox seen bët yi di génne ay rongoñ mënatuñu dara ñu jël leen yóbbu leen Parc 21, une autre vision de la télé.